assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi and ak yeen ak mbekté ci li nga xam mom moy semaine du patrimoine de Cheikh Ahmed Bamba fi ci Dakar mbokk yi xam ngeen ne nag tey nag la ñu ñaareel bu fan bi di le 3 janvier ci biir musée bi xana ñu and ak yeen nak ci li nga xam ne moom moo fas yéenee am tey bisub tey bi ci programme bi ni koy suba ba léegi nag xam ngeen ne li nga xam ne moom moo fi am moom mooy présentation ak vente des photos ñu koy wéyandi ndax solo ndajeem yépp loolu moom moo fi am nit ñi nag ñi ngi ñëw ku ci nekk yaa ngi fësal sa barkeelu ci photo yi di xool tamit xaalu nataal bi nga xam ne moom nga gën a bëgg waaye tamit di ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom moo jëm ci biir exposition bi nga xam ne donc ci suba euh, ba léegi nit ñi ñu ngi dem ak dikk euh, gis tase nañ sax sànq ak kilifa yu mel ne Mame a Sall euh, ci benn maanaam lu mu bind ci livre bi nga xam ne moom la ñu teg fële ci visiteurs yi ku ci nekk rek fësal sa Euh, kàddu wala sa yéene ci bis bi waaye tamit nag li nga xam ne moom moo jëm ci programme bi nag ki nga xam ne moom mooy euh, sëriñ euh, Bassirou Gueye dana fi def benn waxtaan bu am solo waaye tamit ki nga xam ne moom mooy sëriñ Khadim Gueye dina fi jàng tamit bu ngoonee tamit ñu wëyal li nga xam ne moom mooy vente yi waaye tamit wëyal li nga xam ne moom mooy visite yi ak ci biir nga xam ne moom mooy musée bi dan koy wëyal li nag ba juróom-benni fan incha allahu rabbi démb gis ngeen li nga xam ne moo fi am ci cérémonie bi kilifa yi ku ci nekk ni nga fësalee sa cofeel ci bés bi xanaa rek euh, ñuy fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy programme mu tey bi ci ay ziar ak ay visite yooyu yëpp nag su mbokk mi nga xam ne moom la ñu àndal di Serigne Mbacké Sy ci ànd ak yéen ci ay image yoo xam ne maanaam fu fu waay jóge rek dina ñëw fësal ci li nga xam ne moom mooy bés bile tey maa ngi sant alhamdulilah. pour bi naka. soxna Ndeye Mati Sène. tey da nga ñëwoon ci musée bi ñëw ci li nga xam moom mooy exposition bi jaar na ci vente bi dafa mel ni sax yaa ngi téye li nga xam ne moom mooy ci nataal yi euh, ban yëg-yëg nga am bi nga téye gisee bi nga wecceekoo ci photo yi ba pare gannaaw bi nga defee tamit visite bi. waaw wax naa ne fi mu ne nii nag dëgg yàlla euh, sama yaram dafa daw euh, pour wax sax émotion bi dafa rëy lool euh, di sant yàlla rek di naan alhamdulilahi rabi alamina di ñaanal sëñ Muntaxa sëñ Touba yàlla na fi yàgg te ndax lii lépp it ci ayam la tey buñ toogee ba ñëw ñu di ñu won ay nataalu sëñ bi te jàppoon nañ ne benn nataal la am tey ji bu ñëwee ba mën a wecceeku ay nataalu sëñ bi di fàttaliku histoire euh, fàttaliku tegu xeeru euh, jumaay Jurbel ji wax dëgg yàlla euh, dañuy sant rek ñun askanu murit askanu jullit yëpp taalibe yëpp dañuy sant ak di sant ñi nga xamante ne ñoo taxawal liggéey ba tey ji exposition bi mën a am bu ngoonee moom conférence bu subaa ñu war a waxtaan ci soxna jaara wax dëgg yàlla daal dañuy sant yàlla rek di ñaan euh, yal na yàlla def tawféex ak taysiir ak najaa daf ñu saa su ne daf ñuy dolli di ñu ñaaxaat ndax soxna jaara mooy genn jigéen ji am màggal gi kon fu ñu toll moom ñun dañu war dafa war a doon royukaay ci ñun rawatina ñun murit kon nag thème bi am na solo lool ci ñun jigéen ñi ci ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo njaboote ñëpp euh, di sant rek di ñaanal suñu maam soxna jaara laay Eh, fa mu nekk yàlla na yàlla yokk leeram suñu maam borom Touba ak suñu kilifa yi ñu jiitu ji yëpp di leen ñaanal. nataal yi moom wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd lool Abdoulaye bu ma yeggee daal en tout dinaa ko cadré ba mu rafet. ah wékk ko ci kër gi fu ma ko mën a wékk yëpp ma wékk ko fa eh, ku dugg xam ne fii moom këru taalibe la. xam ma sax ci talibé waye nak li mom dafa nek lo xamanteni ne nii dafay gën a dooleel ndaxte photo yi bi ma ko njëkkee gis ci WhatsApp xel mi am naa xarit bu ma woon ne ma ndax photo yi réalité la mais bo duggé fi tay ji ci musée bi bañu won la jaar-jaar bi di nga xamné li ndax xaalis bu takku la ci talibé mouride yi def ñi ngi leen di jaajeufal ngir andi ko fi mëna ëndalé album ki nga xamanteni mom mo jëlone photo yi pour mu nek lo xamanteni li mom véracité la fàttali ñu tur bi. Mamadou Faye laa tudd. foo jógee. Touba. tey da ñëwoon ci exposition bi gis nga fi lu la lu la gën a yéem ci mbiri sëñ bi encore. li ma fi gis kay yéem na parce que mënuma wax sax liir liir naa ba sonn li ma ci soxlaa liir yëpp yenn yi dégg naa ko yenn yi musuma ko dégg mais mbaxana mi mu soloon daal yi mu doon sol kaala gi. wantaay bi baraada yi ak kaasi boppam yi loolu moom ma ci gën a yéem niñ ko mën a garder ba heure bi ñu mun koo tegaat bët surtout mbaxanam yi nag loolu moom moo ma ci gën a yéeme ak yeneen ndax Sëñ Tuubaa moom bët bu set rek yàlla dimbale ci nga gis si loo xam ne lii da lay yéem loolu moo tax ma tey ma doon liggéey tey am sama deux jours ma ne negal ma daw ñëw Dakar ci exposition xool fi siyaare fi delluwaat fi mu ne nii damay dellu nii Touba. wut tamit nataal yi wut naa ci nataal yi wut ci kafe gi yóbbuwaale barkeeloo ko amul benn la kii kay moom beneen affaire la de te doy lu danaa amaat danaa ñëwaat jëndi saat incha allah. bëgg na bu baax a baax.